tey mooy suma génn bu jëkk euh, en tant que maire de Thiès génn officiel ma jagleel ko suñu wéyjur euh, suñu kilifa euh, suñu sëriñ xalifa bu tedd bi sëriñ Muntaxa ñu ñëwoon ziyaare ko indil ko conseil municipal bu Thiès yëpp indil ko bureau municipal waaye ñu indil ko suñu yéene ci Thiès xalifa bu tedd bi dalal ñu ñaanal ñu may ñu ñu ànd ak moom julli loolu lépp dellu nekk loo xam dafay gën a dëgëral suñu yaakaar ndax bu ñu yàlla suturalee jàppale ñu ànd ak mu ñaanal ñu waaye ñu ànd ak moom julli ajjuma dafay gën a dëgëral suñu yaakaar ñu wax ko ambition bi nga xamante ni moom la ñu am ci Thiès wax ko mu ñaanal ñu ba ambition boobu ñu dëggal ko ñu ñu ñu ñu def ci ay réalisation yu mag a mag ci biir Thiès yoo xam ne waa Thiès yëpp dinañ ci teg seen bët kon bu ñu génnee ci daje bi wax dëgg yàlla suñu yaakaar dafay gën a dafay gën a yaatu eh, suñu doole dafay gën a yaatu xam ni eh, ambition bi ñu am Thiès ak ñaanu sëriñ bi incha allah dinañu ko réaliser. am ambition bu mag ndax eh, boo ñëwee Thiès mooy ville la mais turu ville la yor mais lii mandargaal dëgg ni ville Thiès da ko commencé ñàkk bi ci jiitu rek mooy les espaces verts Thiès dëkk la bu mag boo xamante ne amul espace vert amul fenn fu xale yi mën a dem man fa féexloo ndax la fa nekkoon ay espace vert ay boroomi doole ay boroomi alal jël nañ ko toog ci privatiser ko loolu nag bi ma ñëwee maa ngi ciy def xeex bu mag boo xamante ne espace vert yëpp dinañ leen nangu ñu delloowaat leen la ñu nekkoon ñu delloowaat naat ñu defar Thiès mu am ay espace vert yu bëree bëri ndax option bi may liggéeyee mooy Thiès ville verte Thiès dafa war a naat dafa war a verte ñu jëmbat ay garab yu bëree bëri ñu ngi ciy liggéey ak ENSA ñu ngi ciy liggéey ak Eaux et fexe ba li nga xamante ni mooy identité Thiès mooy garab mooy Kaysera ñu fexe jëmbat garab yu bëree bëree bëree bëri Thiès naat ndax damay wax chaque jour ni mission bi jiitu ci collectivité locale mooy cadre de vie mooy dundun bi fi ñuy dundee kon fi ñuy dundee war na set. Euh, war na am ay garab bi ma ñëwee opération bi ma jëkk a def mooy opération de nettoiement et de désengorgement ku ñëw cees tey jii di gis ne tali yi suuf si mu ngi wàññeeku dëkk bi mi ngi set ca loolu priorité la ci man muy dëkk bi set bu loolu weesoo ci wàllu formation am nañ ci ambition bu yaatu bi may ñëw Thiès Thiès fekk ñu fa ñun bourse bureau des bourses mairie bi daawul jàppale doomu Thiès yi nga xam ne ñu bëgg a jàng ñun ñu taxawal benn bureau des bourses budget bi ñu voté ñu voté ci benn enveloppe boo xamante ni ñi ngi ko jagleel xale yi maanaam doomi Thiès yi nga xamante ni dañu bëgg a jàng tax dañ leen a war a soutenir waaye Thiès aussi dëkk aada la dëkk caado la dëkk cosaan la ndax histoire Sénégal lu ci bëri Thiès lañ ko dund lañ ko binde histoire Afrique de l'Ouest aussi lu bëri Thiès lañ ko binde loolu dañ ko war a protéger loolu dañ ko war a aar dañ ko war a yiir dañ ko war a jàngale dañ ko war a xam xamle dañ ko war a moo tax tey jii ñu ngi ciy liggéey ci patrimoine boobu non seulement ñu aar ko yiir ko waaye ñu siiwal ko ba doomi Cees man ko xam ba waa Sénégal yëpp man ko xam loolu aussi lenn la ci yéene yi nga xamante ni am nañ ko ci Cees ñun Cees ñi fa nekk ay maire dañ leen a tànn dañ leen a xool xoolaat leen seet leen seetantal leen ci fànn bu ne ñu doy coalition Yewwi Askan Wi doy waa Thiès nekk ay ndaw yu bëgg cees yu am dignité bëgg seen réew ñooñu amuñu prix ñooñu Macky Sall mënu leen a jënd moo tax ñun ñëpp dinañu àndaat ci élection yi incha allah législative yi gagné ko Thiès gagné liste national yëpp liste départementale yi am majorité au niveau de l'Assemblée nationale imposer la cohabitation à monsieur Macky su ko defee loolu dinañu may ñu jeté base yi nga xamante ni incha allah 2024 Yewwi Askan Wi dina jël le pouvoir ñu engagé wu ci projet bu mag a mag boo xamante ni yittey projet boobu mooy ñu liggéeyaat Sénégal mooy ñu tabaxaat Sénégal fexe ba Sénégal dellu fa mu nekkoon.